waaw wax ci sëñ moom du jar ma ci sori euh, sëñ dafay ku jël léppam jébbal ko sëñ Touba waaye bi jëlee léppam jébbal ko sëñ Touba daf ko dëggal dundam gépp ñun yàlla dimbali nañu ba nu gimmee dugg ci daara ji taxoog moom waaye li ñu mës gis ci moom mooy ku jeex takk ci sëñ Touba ku jeex tàkk ci sëñ Tuubaa nag na xam ne alal li alali alali lislaam nga alali adduna sépp nga sëñ Atou c'est un patrimoine universel sëñ Tuubaa du alali euh, sëñ Atou du alali waa Sénégal rek du alali murit yi rek alali képp koo xamante ne euh, lislaam ñor na la rek ci àdduna yaa ñàkk sëñ waaye nag aw yoon woo xamante ne moom def na ci loo xamante ne leer na nañ xam nga lan moo ci des ñun ñii la doon def fa jaaroon ñu wéy ci rek. ndax kenn saxu waaye li wér ba wér mooy am na ngërëm te dafay añi rek nun ñii dinañ ko fekk ji kon yàlla ñu sëriñ bi dimbali ba fi mu awoon ñu aw ci hmm. te bañ a jàdd ndeyjoor hmm. ban a jàdd càmmoñ ba buñ koy fekk ji jërë ngeen jëf